وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين تبارك الله بك جلجي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam eh, dellu si nen fas yéene continuer waxtaan wi nga xam ne dooroon nañ ko ci jëmm ju tedd jëmm ju nga xam ne yàlla ñu ko baaxe mu di mu xallis boo xam ne dafay xettali xeetu sayiduna muhammad jële leen ci ay fit yuñ doon dund ci seen biir te moo di bañante guy am ci diggante jullit mi ak rayante ak noono boo xam ne dana yegg dayoo kenn ku ne di xiiru sa moroom doo ko toléral dara doo ko muñal dara jullit ñu nga xam ne tur yàlla boolewu leen ngir ñu ànd nekk benn muy baatu laa ilaha illa jullit ñu nga xam ne alquran boolewu leen mu di kalaamullah jullit ñu nga xam ne lislaam boolewu leen sax di di dinullah julit ñi nga xam ne alkaaba almusharrafa boolewu leen mu di baytullah seytaane am doole lool ci jullit ñi ba mënatuloo xàmmee kan mooy jullit ci biir jullit ñi ndax kenn ku ne yaa ngi teg sa baram ci sa dënn ne may jullit di joxañ sa moroom ne kële du jullit donte mu ngi julli donte mu ngi wax laa ilaha illallah yow jàppoo ne kële jullit la crise bu rëy boobu ak jikko yu yàqu la fi jëmu ju tedd jooju di fekk yàlla defaral ñu ko jox ñu ko mu ñëwaat redressé waat lislaam jël donoy maamam àdduna bi yëpp ànd moom topp ci ginnaawam tabaarakallaahu mu tegaat lislaam fa ko maamam tegoon tabaarakallaahu la ca yàqu woon yëpp mu defar ko kon jëmm jooju kado la ni maamam nekkee woon kado ci ñun àdduna bi yëpp ay xéewlu ci maandoom akuk njubam àdduna bi yëpp tabaarakallaahu ñoo koy nangul ci xam-xam bu rëy ba tabaarakallaahu ndax mbooleem xeeti xam-xam yoo xam ne dafay jóge ci boroom bi jëm si ci moom ci luy defaraat xeet wi yàlla dana ko ko jox moo tax muy amee logique bu nga xam ne ñëpp a koy nangul mu mel ni ci waxtaan wi ñu génn waxoon nañ ne lii indi loolu mooy yudrasul islaam l'islaam dañuy dafay dem ba dañu koy rappel ba daanaka màndarga yi ñu ko doon xame muy sha'air yëpp dañu koy foye dañu koy foye moo tax yonent bi misaal ko ci mbubb moo xam ne dafa dem ba rëdd yañ ca defoon yàggug col ak yàggug jëfandikoo tax na rëdd ya kenn xàmmeetu ko kon nag lislaam yàgg bu mu yàgg ci suñu loxo ah rawatina ñu am ci ay njiit yu nga xamante ni xamuñ ci lislaam dara lu dul dunde barke ba te moo fi bari bëri na kilifa diine koo xam ne tey amaana sax tabaarakallaahu soo ko doon miiraas loo sonal ko ndax xamu ci dara soo ko firiloo alquran sonal ko ndax xamu ca dara waaw amaana sax ku ko toppoon ci yenn jëf-jëfi diine yi da gis foo ko xeebee ndax lu ci yu ca bari daf ca sàggan ba xamu ko te ruus na koo laajte ndax maqaama bi mu tooge waaw ri kilifa diine yoo xam ne lax dëri bi li muy tuuti tuuti tuuti soo leen ko joxoon mënuñu ko firi te ñu ngi am taraanga bu ne ci lislaam waaw ñu ngi am taraanga bu ne ci lislaam lislaam teral leen waaye xamuñ ci lislaam lu dul lu tuuti ba tax na kilifa yu bari ci ñoom ay théâtre leen ay artiste lañu tabaarakallaahu dajale nit ñi te duñ leen wax dara yàlla dara moo nekk ci réew mi loolu nag du fontoo kër bàyyu kenn fontoo diine yàlla ji la te yàlla kenn du fontoo diine ndax képp ku ko def na la leer ni Serigne Cheikh nee na ñaar yi duñu changé wala boog mënuñ ci dara ñun doomu aadama yi mooy berso ak kuusu bàmmeel ndax ñaar yooyu dañu aju ci yàlla yàlla mooy juddul ku ko neex moo tax bis bu ne berso di am gan waaye itam yàlla mooy rey ku ko neex moo bisbune bis bu ne dégg nga bàmmeel di am gan ba tax na ñaar yooyu nag loxo doomu aadama yàlla da ko cee wiccax jigéen dina ëmb sax te du xam ki mu ëmb kana ak lu mu fiy def si dana ko jëriñoo wala du ko jëriñoo waaw léeg-léeg nga jur doom sax foog ne moo lay gën a gudd fan far yow nga gën ko gudd fan suul ko waaw kon juddu ci loxo yàlla la ne waaye itam dee ci loxo yàlla ne comme nag mënuñoo mucc ci dee te fok ñu dee te bu ñu dee yàlla atte ñu caay-caay guñ fi mën a nekkee itam suñu boroom subhaanahu wa taala mu ngi xaar rek ci kuusu bàmmeel ndax yàkkamtiwul ndax turam wari wow mu tuddee alxaliimu mooy ki nga xam ne yàkkamtiwul dara ndax eh, daanaka suñu borom subhanahu wa taala saytu na mbir yëpp suñu dund bi léeg-léeg ñu ne gudd na lool fekk gàtt na lool ci yàlla waaw dafa mel ni benn waxtu moo tax nag ki nga xam ne sa dund téeméeri at benn waxtu la ci moom yàkkamtiwul waaw yàkkamtiwul moo tax ñiy fooye diine nanu xam ne yàllaa ngi leen di xool inna rabbaka la bil mirsad yàlla ngi fuglu lépp di gis lépp waaw bu ñu foyee diineem ji nanu wax nit ñi yàlla bu dara nekkul ci ñun nanu dandu seet ñi nga xamante ni dara ngi ci ñoom ñu bàyyi leen ñuy wax te moo di boroom xam-xam yi ragal yàlla tey jëfe seen xam-xam wala sax boroom xam-xam boo xam ne ragalul yàlla waaye nag mu ngi waxal yàlla bi maana eh, daganalul lépp lu xaraam te xaraamalu la lépp lu dagan waaw borom xam-xam la bo xamne ne doonte jëfewu ko waaye mu ngi wax li yàlla wax koko itam jarna déglu yow mi déglu itam bul xol jeffi ki déglu ki wax mais xolal tabarakallah la muy wax waaw la muy wax nit ki bu la tere cigarette di tour cigarette yow xamal rek ni cigarette fay ray waaw ndax bind nañ ko ci tabarakallah paquet bi nga xam ko ndax danga koy gis médecin bi nga xam ne moo lay faj ci jàngooro ji nga xam ne cigarette moo la ko jox amaana moom sax bu génnee jënd paquet wala paquet a ngi ci poosam mu ngay tux kon bakkanam la topp waaye teewul dëgg gi moom mu ngi fi boo ko laaj mu ne la cigarette dafay rey waaw kon ah, ki am xam-xam daal nanu ko bàyyi mu wax ak nit ñi ñi xamul nag nanu dandu loolu la suñ boroom wax ne fas alu ahla dhikri in kuntum la taalamun nit ñi nag laajatuñu ki xam waaye ki am sant lañuy laaj waaw ki am sant la ñuy laaj bi maanaa ki sant Mbàkke wala ki sant si wala ki sant taal tabaarakallaahu ah wala ki sant ñas ñooñu daal lañuy dem di leen laaj diine waaw di leen laaj diine te nag tabaarakallaahu ah loolu aada la diine daal laaj ko ki jàng waaw te xam ko waaye bu ko laaj ki am sant ndax wóorul mu mel ni imaamul mahdi bu ñëwee loolu la fiy fekk fekk lislaam ami problème ndax ñi ko waroon a saytu téyeku ñoo ko ràppal ba xàmmeetoo daray lislaam ci leen lay wax ne la daañu dem ba nga xamante ni sax dégg nga téere bii di alquran suñu boroom dana ko yëkkati ji ndax rek tabaarakallaahu eh, doyadal gu ko nit ñi doyadal <clears throat> su ko defee daañu dem ba nga xam ne lislaam mag ñee koy dese waaw loolu ngay gis soo demee bitim réew ci diine ji ñuy tuddee diine nasaraan daanaka sénégalais yi sax liñ ci li ci liñ ci am bitim réew amuñu ko ndax Séné sénégalais yi fii nga xamante ni ñoom ay nasaraan lañu ah, ñu ngi farlu itam ci seen diine ñi ci nekk jeune di ci góorgóorlu waaw di ci góorgóorlu fii da nga gis jeunes yi di góorgóorlu ci seen diine nasaraan waaye boo demee Europe mag ñaa dese diine nasaraan ñooy nekk ci église yi waaye ndaw yi ñoom taluñu ko waaw taluñu ko waaw crise boobu nekk ci diine nasaraan dana ñëw ci diine lislaam te mooy dana dem ba nga xamante ni mag ñi rek kay dese diine mais ndaw ñi duñ ci am dara waaw te mag ñi nga xamante ni itam ñoo koy dese daanaka euh, du tax ñu fonk julli lool du fan tax ñu fonk koor ndax ñi ñu donne lislaam ci ñoom dañu ko woyefal ba daanaka daal lislaam boo dee xool baatu laa ilaha illallah la ëpp lu ci nit di xam di ko wax ci mbedd mi te boo leen laajee sax lu muy tekki dañ naan noonu rek leen ko déggee ci suñuy wayjur waaw loolu nag yegg yeggaguñu ca ndax macha allah fii ci Sénégal gàcce ngaalaama suñu mag ñu baax ñi yàlla barkeel na seen liggéey tabaarakallaahu ah ñi ñëw ci seen gannaaw itam ah tooguñu rek di nelaw waaw ñoom itam bay nañu seen waar ba ci suñu jamonoy tey ji ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ah, yàlla nattoo nañu ñu jàppe ñu ay boromi xam-xam ñu ngi góor góorgóorlu di wax lu ñu mën ba loolu boo ko seetee am na lu mu jur li mu jur nag mooy jàkka joo dem daanaka ndaw ña ñoo fay ëpp waaw jeunes yi ñooy ëpp ci jàkka yi loolu nag wax dëgg yàlla nañu ko sant yàlla Sénégal loolu wax dëgg yàlla nañu ko sant yàlla waaw cant goo xam ne day tax suñu boroom gën ñoo dolli te mooy lan suñuy sët ak suñuy sëtaati sëtaati sët ñoom itam bu ñu ñëwee am diine ju ëpp ji ñu amoon yàlla nañu ko yàlla defal bi mahdi fadlihi wa juudihi wa karami mu mel ni mahdi bu ñëwee lii la fi fekk ndax yii ñu leen wax yëpp Euh, ay signes la yoo xam ne jamono ngi koy feeñal ndànk-ndànk euh, dama dem ci benn mbooloo ñu toog di waxtaan mu am ñu ma fa laaj ne leen waaw laa ilaha illallah waaw ci gàmm gi sax ma leen waaw laa ilaha illallah lan lay signifier waaye ñu bari xamuñu ko yàlla xam na ko laa ilaha illallah lu muy tekki ñu bari xamuñu kon signe bi mu ngi commencé feeñ jamono bi ñu dund nga xam ne gis nit ñaa ngi julli sax ñu ngi dégg laa ilaha illallah mais xamuñu lu baat bii di tekki waaw te nag jullit bu ne buñ la laajee lan moo di laa ilaha illallah war nga ko wax waaw war nga ko wax ndax ah yow miy déglu amana xeyna sax baat bi bëgg nga ñu firil la ko te insha allah dañu la ko firil buñ la ko firilee nag na la leer ne am na ay maana yu gën a xóot sax niñ la koy firilee ndax laa ci arab mooy luy dàq waaw laa gi nag dafay dàq dàquk faw goo xam ne du am ba mukk laa ilaha amul benn buur laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ rekk la ñàkk ko jaamu ay lor rekk la illallahu ku dul yàlla kon nag bépp euh, lu ñu teg ni lii yàlla la su fekkee jaamuwuloo ko dara du la ca fekk su fekkee jaamuwuloo ko mënulaa dóor mënulaa lor moom yàlla jooju waaw ndax amul lum lay lore amul lum lay jariñe amu ko ndax mbindeef la comme yow xëy na kay yow ñàkk xam moo tax nga koy jaamu moo xam doj wi la moo xam ndox mi la xataa sax jëmm ji ndax am na ñoo xam ne ay nit lañu jël def leen yàlla su ko defee la ilaha li muy signifier mooy amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk koy jaamu di lor illallah ku dul yàlla bi maanaa benn buur amul ku dul yàlla yàlla rek a fi ne soo gëmee ne yàlla rek a fi ne te lan moo di yàlla yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki mën lépp te tëlewul dara kii mënal képp ku mën kon nag bu la lëf dee jariñ ba nga foog ne loola yàlla na la leer na njariñ loolo yàllaa ko jaarale foofa kon nag bul xool lëf la xoolal la ca gannaawam xoolal la ca gannaawam su ko defee li yàlla bëgg nag mooy kooka di la jariñ ak la jariñ la di rëy rëy rëy yëpp ak cant rek la am waaye jaamu moom yàlla nga koy def waaw cant rek la mën nga ko sant ndax fa la yàlla la xéewalam su dee ne lu lay lor la itam kooka di la lor bu ko ragal mukk ndax kàttan gam lay lore ci yàlla la jógee amaana nattu la ci yow jullit bi kon nag soo bëggee lu la ci ca xettali ñaanal yàlla mi yor kàttan gi mu dimbali la ci moom moo tax seytaane boo dee muslu ci moom da nga naan yàlla téel ma sa xaj bi balaa mu maa lor loolu mooy aouzu billahi min asheytaani rajim waaw kon nag képp ku yor caay-caayug seytaane di la gaañ moo xam jibarkat la wala mu lay gaañ moo xam agresseur la wala mu lay gaañ moo xam dafa nekk kii kilifa goo xam ne daf lay euh, euh, exploité Eh? wala jëkkër joo xamante ni dafa lay noote tabaarakallaahu wala sax eh, réew yu mag yoo xamante ni dañuy noggatu ay réew yu ndaw di leen gaañ comme ni ko américains yi di defee Irak di ko defee ci yeneen di dëkk jullit bi liñ ko sant mooy ne wéeru ci yàlla ñaan ko ndimbal ci saay-saay yu bon yooyu su ko defee yàlla mën ko dimbali ca ñooña ndax yàlla ci boppam mooy borom kàttan gi kon kattan googu ñu am yëpp kattanu yàlla la donte ñu ngi cay lor yàlla dana leen ko régler ëllëg kon laa ilaha illallah mooy loolu nga xam ne daal eh, kenn rek ay buur te mooy yàlla moom dong leen war a jaamu soo ko jaamoo nag danga am lu bari ci njariñ ndax jaamu ko dala cay fay soo ko jaamuwul nag ëllëg yowmal xiyaam dañ lay dugal safara kon koo xam ne soo ko jaamuwul dugg safara jaamu ko farata la waaw jaamu ko farata la ndax safara metti na waaw te daanaka benn musiba nekkul ci ginnaaw dugg safara moo tax su nit ñi demee ba yegg foofu ci gaañante ci noonoo ci ñàkk yërëmante ci ñàkk maandu adduna bi tegu ci ay xeex yoo xamante ni wax dëgg yàlla boo ko dee xool daanaka dundu jën la rek ci biir géej ku ëpp doole sa morom rek noote ko waaw ku ëpp doole sa morom rek noote ko loolu ngay gis fu mel ni suri puissance ya fa daje yëpp kenn ku ci nekk rek am na loo bëgg a sàcc waaw loolu ngay gis libi loolu ngay gis Irak loolu ngay gis xataa ci suñ dëkku Afrique yi Sierra Leone gis ko fu mel ni Rwanda waaw noggatu ak noote waaw su ko defee réew yu mag yi nga xamante ni sax organisé wu nañu ba taxawal lii ñuy tuddee ONU gis nga lépp dafa am ci ay loxo yu mu tege tegu loxo ñu am doole tabaarakallaahu nekk ay saay-saay yoo xam ne lu leen neex la ñuy def waaw ña ñàkk doole amuñu benn àq ak yelleef ca la ñuy doxal dañ koy doxalee nu mu leen neexee kon yooyu yëpp da ko fiy gis mu di ay mbir yoo xam ne dara maanduwu ci dara jaaru ci yoon kon kan la yàlla di baaxee pour mu mën ñoo xettali ci loolu mooy al muxallisul kabir moo di al imam al mahdi al mahdi fan lay jóge ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yaxruju rajulun min al madinati mutawajjahan ila makka ismuhu muhammad wasmu abihi abdullah نينا وجده الأعلى حسن بن علي نيني اه ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا ني دنا أم جم جو خمني دنا جيني في مدينة المنورة جبل مكة المكرمة ينتبه ما يوحد نيني جم جوجو مونجي تدو محمد اسمه محمد نين تور بايام ايتام عبد الله لي تود كون محمد ابن عبد الله لي تود نين بودي توب اسكنم نين داغي جيس ني مامام مودي حسن بن علي حسن مومو موي نيك مامام علي موكاي جور مو اسكنو سيدتنا فاطمه mu mel ni eh, yonent eh, imaamul mahdi dañu wax ne eh, ci benn guddi ci benn guddi la ko yàlla di defar waaw ci benn guddi la ko yàlla di defar suko defare nak mission bi mu soxla ci mom pour mu doxal ko bokku na ci da fay nek mujahid bi makna day nek soldat bo xamne wala général bo xamanteni da fay xex da fay def jihad kon imamul mahdi mujahid lay nek kon nanu xamne bokku na ci melokanam al jihad fi sabilillah ndax dana fi fekk mbon koo xamante ni fokk mu yëkkati jaasi na ko maamam yëkkatee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñu ko melalal ne ajulal jabaha bi maana ku yaatu jëla ñu ne ku leer itam jëla boo xoolee jëba kawar muuru ko te itam leelul waaye nag jëba yaatu na leer leeraay goo xam ne boo ko ne jàkk taaram moo lay njëkk atire waaw neena itam bakkan bu rafet la yor moom imaamul mahdi nee na dafa niru nag sayiduna muhammad ci taar baak lépp yonent bi nee na lenn rek la niroowut ak man jikko ndax fi ma yegg ci jikko kenn yeggu fa waaye maag moom ñooy niroo tur ñoo koy bokkule nee na itam sama turu baayam ñoo koy bokkule neena na itam jëmmam ak sama jëmm benn la waaw kon bàyyiwul ci Seydina Muhammad dara kon ni mag ñi melale Seydina Muhammad ci seeni téere ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fi jógee Seydina Ali melal na ni yonent bi meloon mag ñi bind ko waaw wax la bët mu mel wax la lex yi na mu mel wax la biir ba na mu mel ba ci kawaru dënn ba wax neen la ko wax la tànk ya na mu bindoo tabaarakallaahu noonu ko si naalin melale téere bind nañ ko noonu noonu itam la ko saydatuna Aïcha melale téere yi bind nañu ko kon Seydina Muhammad bàyyi wuñu daraam kon bu imaamul mahdi ne tëll boo jëlee loolu mag ñi bindoon dafay dëppoo ak ni mu mel moo tax loolu daf ñuy gën a gindi ci ñu mën a xam jëmm ji euh, ràññee ko waaw ñu mën a xam jëmm ji bu baax ràññee ko mu mel ni euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, balaa génn moom imaamul mahdi daa ngeen gis misaal bi te misaal bi daanaka waxtaan bu ñu wax wax ko ci mooy sàggane goo xam ne daañu ko sàggane ma dinatul mu madinatul munawwara ba nga xamante ni daraja jañ ko joxoon dootuñu ko ko jox dégg nga eh, su ko defee mu génne dina nag daal di jëm makkatal mukarrama ci diggante boobu nag lu jiitu muy yegg Makka ci benn guddi la yàlla di def ci moom li muy noté jullit ñépp ba ñu ànd ak moom ci xam-xam ci jikko ak njàmbaar ñett yooyu xam-xam bi day mat sëkk ba masala bu yàqu ci diine ji moo koy defaraat waaw masala bu wuute am ci diggante Shaafi ak Maalik ak xanbalak abu xanifa ak اك ak mboolem mazahib yi nga xam ne boo ko dee xool àgg na ci ñetti téeméer ñetti téeméer ak lu topp ci ay école yoo xamante ni école bu nekk ak sa idéologie ci biir l'islam ak gis nga njàpp am na ñoo wax nañ ne boo xaqataayee sa pourtant ñun ci mazhabu Malik lolu tojul suñu njàpp waaw am na ñoo xamante itam waa ci sëy gis nga leen waaw dagal na leen sëyu contrat a ah, ci ñun mooy nikaaxul mutaa dégg nga bu dee ci ñun daganul ci suñu école eh, am na ñoo xam ne tey ci weeru koor bu ñu juuboo dañuy fay comme ñun mais am na ñoo xam ne boo juuboo du ñu fay kon am même ba ci affaire burqa bi ñuy wax xijaab ñoom jàpp nañ ne jigéen kanamam awra la moo tax ñuy muur seen lépp lu lépp ay école la ay déggin la kon nag ki ñu mën a leeralal yooyu indil la nga xamante ni moo doon cosaan bañ bañ mën a jàpp ne lii mooy li fi yonent bi bàyyi woon du kenn ku dul imaamul mahdi mbokk yi kooku tuutiwul jëmm jooju tuutiwul mooy redressé l'islam bi wax naa leen lu ëpp juróom fukki xadis ñëw na ci diggante xadis bu wér ak bu ñu rafetlu tawaatur boobu ci am tawaatur boobu ci am moo tax albani wax na ne dikku jëmm ji sikk nekkul ci ne eh, luy am la ndax ahadis yi ci ñëw eh, wax dëgg yàlla dafa am tawaatur boo xamante ni xel mënu ko weddi moo tax eh, su ko yàlla defaree moom jëmm jooju di imamul mahdi fekk mu ngi jóge mak medinatul munawwara war a dugg makkatal mukarrama dana ñëw fekk benn problème ci makka problème ba mu fay fekk nag moo di dafa fekkoon boobu adduna bi wala boo gox boobu diggante cham dégg nga ba dugg ardu hijaz mooy Makka ak Medina ki ko wër dana fa fekk maanaam li ñuy tuddee al khilafa mooy diw mooy xalifa diw fii ci Sénégal sax am na fi moom tu arkalla waaw ndeysaan muy njëkk a siiwee nag ci sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu baatu xalifa waaw fii ci Sénégal ah mom lako fi yàlla ñëk def alaaji malik jóge fi rek ñu ne Aboubacrin al Khalifa ah ku ne xam na ne suri gi nga xam ne tay yonent bi waxon na ne suñ fa déggé baatu khalifa nañu xam ne danaka aduna ngi bëgg tukki danaka imamul mahdi mu ngi bëgg fe danaka isa ibn maryam mu ngi bëgg fe danaka daanaka masiixu dajjal mu ngi bëgg fe moo waxoon ko saxaabi bu mag boobu kon ne ko sama loxo bi ni mu jegee sa bopp saa boo déggee xalifa ci fii ci Syrie na la leer ne eh, tukkik àdduna gën na jege no raw ni sama loxo bi jege sa bopp bi te mooy misaal yi commencé nag di tegaloo waaw alaamaat yu mag yi nga xamante ni mooy yu ci tushiru ila xululi saa commencé nay feeñ loolu tax depuis fi Bachar Assad nekkee kenn daawul mosul kenn mosul dégg baatu xalifa foofu ci Syrie waaw kañ la xalifa bi feeñ mooy bi fa problème yi amee ba rayante bi am ci nga fa déggee baatu xalifa ñu gis ko ci Aboubacar al Baghdadi ci Daesh kon misaal yaa ngi feeñ imaamul mahdi nak su duggee makkatal mukarrama fay fekk ben khalifa bo xamné ne dafa génn àdduna dafa donne won bayam wala bok kamu don won mo xam tabarakallah bàyyi wala du bay ci mo waye dal fekk nen ben khalifa bu génn aduna ñu wara samp kenen ku ko wuutu déggoowuñu nak kenn ku ne indi sa candidat bop ne mom mo wara nek khalifa موي تشاولوري كل حزب بما لديهم فريح كل حزب بما لديهم فريح سوكو ديفي تشاولولو لفا امام المهدي دي فك ني توك دير بو ياغ جامونو بو ياغ منو سامب خليفه wa dang koy xol fu melni liban problème président la no am ba légui da naka mu ngok waye nak rew ma ngay dox mu ngay ki waye am nañu problème kan moo war a nekk eh, tabaarakallaahu alors ci biir loolu problème boobu nga xam ne danañ ko fekk Medinatul war a mooy kan moo fay nekk xalifa imaamul mahdi bu ñëwee loolu lay fekk makkatal mukarrama xalifa bu génn àdduna ñuy seet nag kan leen war a mën a fal kom xalifa waaye naka la ko nit ñi ci melokaanam ci xam-xamam ci mando mu mel ni daal yàlla def ci ñoom faraasa ñu rafet jortu ci moom ci ne kii daal bu ñu ko sampee xalifa li lislaam bi soxla yépp dana ko ko jox ah moo xam dafa am ko xamee mbiram waxtaane ko wala yàlla boog moo jël mbir mi rek sànni ko ci xol yi da koy gis sax ci Macky Sall fekk na fi parti yoo xam ne def nañ fi lu ëpp ñeent fukki at moom diir bu ndaw rek yàlla bëgg ko fal rek jël ko sànni ko ci biir xol yi mu falu gis ngeen ko kon mbir mi du politique bu rëy du yàggaayu parti yàlla mooy fal ku ko neex waaw kon misaal mi ñun sénégalais yi bu mu ñu sori waaw bu mu ñu sori waaw ñu sori ndax ku ne xam na ne Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu lii mu am ci tariqa tijaniya jagleeg yàlla la waaw naa la bu jóge ci borom bi jëm ci moom ndax fekkoon na tabarakallahu ay shurafa yoo xam ne amoon nañu cër lool ci yoonu tijaan waaw waaye nag moom la yàlla soob tabarakallahu mu jël ndam li ñu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom donte Afrique la jóge donte nit ku ñuul la tabarakallahu ah yàlla soob na ko daal ñu jël xilaafe gi jox ko ko te bañ ko ko joxe itam la ca war yëpp def na ko tabarakallahu ba lislaam bi nga fiy gis ci réew mi yëpp gàcce ngalaama nan ko ko sant ci loxoom la ko yàlla jaarale kon radiallahu anhu yal ko yàlla gërëm nafa nafaana allahu bi barakatihi wa azada allahu inaarata qabri kon imaamul mahdi noonu la ko suñu boroom di fale muy dugal ko ci xol yi ci wuute boobu nga xam ne fekk na ko makkatal mukarrama waaw wuute boobu nga xam ne fekk na ko makkatal mukarrama bi mu ñëwee ñoom ñëpp daal ñu nangul ko ne kii daal amaana bu ñu ko falee li nu soxla woon yëpp yàlla danañu ko defal ñu daldi jaayanteeg moom nag ci diggante maqaama Ibrahim ak xajarul aswad foofu la ñu jaayanteeg moom samp ko mu nekk xalifa mbokk yi euh, lan moo waral imaamul mahdi بوكوشي بوكوشي سيدنا حسن سيدنا حسن رضي الله عنه دفا ام لو ام سولو لو مو ديف سي ديني جي لو خامنا يالا خيبوكو لولو تخ مو فاييكو جيمو جو تيد جي نيك ndax ku ne xam na ne yonent bi bi mu génnee àdduna jullit ñi Aboubacar la ñu jaayanteel Aboubacar radiallahu anhu génn àdduna ñu jaayanteeg Sina Omar Sina Omar génn àdduna ñu jaayanteeg Sina Ousmane waaye Sina Ousmane dafa am ñu ko rey te fekkoon boobu mooy buur. di président kon ki ñu tuur deretam rey ko du nitu ordinaire kilifa la woon yilif ñëpp waaye nag def nañ coup d'état rey ko boobu nag indi fitna ci biir jullit ñi ñii mbokk Seydina Ousmane jóg ne ñoom li ñu bëgg mooy ne justice taxaw pour ñu àtte ñi rey seen bokk ah fekk na booba itam Seydina Ali lim leen wax moo di justice mënta taxaw te faluñu ku yilif justice mooy fokk ñu fal buur boo xam ne moo mën a taxawal justice bu feeñal ñi rey Seydina Ousmane waaye booba xëy na Seydina Muawiya moom la mu bëggoon mooy jaxase carte gi ndax mu mën a nekk buur gannaaw Seydina Ousmane ndax booba Seydina Ousmane daf ko jox Cham dégg nga te na ko Seydina Omar tase woon dégg nga def ko ay goxi gox gox bu ne mu def fa xalifa def fa tabarkàlla amir bu ko fa wuut bu ko fa wuutu def fa gouverneur bu ko fa wuutu moom bi mu ñëwee gouverneur yooyu yëpp daf leen folli moom Seydina Ousmane dégg nga jël seeni gox taf ko ci Cham loolu gënoon naa réyal nguuru Muawiya Muawiya toog fa nag diir bu yàgg looloo taxoon dëgg yàlla mu mel ni dafa am nattu ci nguur fekkoon na booba ay waajuram ak i maamam Eh, tabaarakallahu ñoom itam eh, amoon nattu ci nguur ndax nguur dafa bokkoon ci seen ndono moo tax ba ca toogee rek mu ne du ko wàcc waaw ba ca toogee rek ne du ko wàcc looloo indi nag mu tëral ci ay pexe ci makida siyaasiya nu mu mën a toogee looloo taxoon comme njuumale woon ci wàllu politique mu doxal loolu mu doxal loolu nag indi woon ni problème digganteem ak Seydina Ali su ko defee loola juróon na ay problème yoo xam ne jullit ñi dañoo dañoo mujj nekk ñaari gouvernement gouvernement bii mu ngi ci loxo Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama allahu wajha ñu jaayanteeg moom nangul ko mu nekk fële ca Kuufa ci iraak toxal capital islamique bi yóbbu ko foofu di doxal am dëkk yu mu yilif bu dee Syrie ak li ko wër Muawiya moom moo fa nekk moom itam moom itam nekk fa yor état boppam boo xam ne ci turu l'islam lay doxe kon l'islam nekk na ñaari état bii Seydina Ali moo ko jiite bii Seydina euh, Muawiya moo ko jiite donte sax am na ñoo xam ne li mu Muawiya def nanguwuñu ku ko wooyee na waaw ndax eh, am na fuñ ko féetale waaye ñun dey eh, respecté nañ mboolee mi saxaaba li dox seen diggante itam ñun suñu yoon nekku ci waaw ndax eh, gëm nañu ne yàlla ci boppam mooy atte seeni mbir kon loolu ñun suñu yoon nekku ci li ñu mën daal mooy daañu wax na mu gën a rafete daanu wax itam na mu gën a maandoo ak na mu gën a jekke lenn li nag ndogalu yàlla la te mooy seytaane dox na ci diggante njabootu yonent ba yu ñaaw xay eh, na ci seeni diggante waaye ñun duñ ci wax lu dul lu rafet ak li ñu mag ñi jàngal mooy wal imsaaku amma shajara baynahum bi loolu amee ñu gisaat beneen groupe bu génn ñu tuddee leen xawaarij xawaarij yooyu ñoom ñoo rey Seydina Ali karamallahu wajha ci waxtu fajar lañ ko rey ca jàkk ja kon rey na nanu ko baax ku tedd rey nu jëmm joo xam ne yonent bi bëggoon na ko yaral ko boppam mësul jaar cig ndaw rey na nanu jëmm joo xam ne yonent bi nee na mooy buntu xam-xam ndax man may néeg bi moom mooy buntu bi te ku ne xam na ne deewu boroom xam-xam nee na montagne bu xàppatiku la amul benn ciment bu ko mën fat kon jëmm jooju ñu rey muy sidna ali ibnu abi talib mi nga xam ne yonent bi dénkoon na ko ki nga xam ne moo doon dogitu resam di doomam ju mu fonk bëgg ko muy fatima radiallahu anha mu jural ko ñaari sang muy sidna hasan ak sidna husayn te bu yonent bi masaana xool xasan ak xuseyn da daan wax ne ñaar ñii de képp kuy ndaw ëllëg ci àjjana ñooy sa sang kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon nanu Seydina Ali tolloon ci moom Seydina Ali moomu nag ñi ko rey dey ñu ngi doon mbubboo islaam wax ne ne ñoom ay jullit lañu waaye ñooñu ñooy xawaarij yi Sina Ali nag moo leen tuddee xawaarij ba xeex ak ñoom ci Nahrawaan li ko waral moo di ne jàngoon na ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax ko ne ko xawaarij yi ëllëg boo leen gisee daañu ci jullit ñi waaye amul kenn ci kibaaru saxaaba ci mag ñi nga xam ay sahaba lañu du ngeen ci gis kenn ànd ak ñoom kon ay ndawi kese leen yoo xamante ni am seeni gis-gisu bopp ci lislaam mën nañu alquran mën nañu xadis waaye amuñu kilifa ñooña nag ñoo rey jëmm ju tedd ji ñoo rey valeur boo xam ne benn valeur tolul ni moom ndax wax naa leen ne keroog bi yonent bi di def mu baahala ah wax na ci alquran ne wa anfusana wa anfusakum waaw wa anfusana mooy sidna ali la wax ne mooy jëmmam kon Seydina Ali jëmm yonent bi la sallallahu alayhi wa ndax boo ko dee xool imaamul mahdi sax ci njabootam la bokk kon jëmm jooju ba ñu ko reyee julit ñëpp daw nanu wala boog ñi ëpp ci julit ñi surtout ñi àndoon ak Seydina Ali ci waxtu woowule doon ko jàppale daw nanu jaayanteeg Seydina Xasan ne ko rey nanu sa waaye doy nga ñu nga wuut nga wuutu ko nekk xalifaam Seydina Xasan d'accord ak ñoom ñu jaayanteek moom waaye ba tey rek ñaari état am na ndax boo demee fële ñuy wax Cham muy Syrie ak li ko wër ñoom Muawiya la ñu àndal nga ñëw Kuufa Makka Medina foofu fépp Seydina Ali moom moo ko moom moo fay doxal muy wute boo xam ne daal rafetul dara ci deru lislaam yoonanti bi di dundu jullit ñëpp nekk benn muy benn état yonent bi taxaw ca kanam di digle di tere mu jóge fi Aboubacar toog lépp di benn mu jóge fi Seydina Omar toog lépp di benn mu jóge fi Seydina Ousmane toog lépp di benn Seydina Ousmane jóge fi lislaam bi xaajaloo ñaar ñaari dawla yooyu nga xam ne amoon gene woon na jëmm ju baax ji di Seydina Hassan moo tax bi jullit ñi dawee ñëw jaayanteeg moom toog na ca nguur ga juróom benn weer muy six mois yoo xam ne Seydina Hassan mu ngi àtte comme xalifa ku wutu baayam toogal fi itam maamam di Seydina Muhammad te ku ne xam na ne moo gën a yey ci wutu maamam ndax ci cell la ak seede bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi waxuñ sax juddu waaye bu yonent bi ne kii mooy sangu waa ajjana kuy sangu ajjana nag kon nag rawatina ku yilif waa ajjana doon seen sang jeunes ya rawatina waa suuf kon ay la yëwén Seydina Xasan moom moo doon xalifa bi gën a wér moo doon njiit li gën a wér ci waxtu woowu Muawiya moo doon ki nga xam ne toogul ci dara yorul dara doonul dara waaye nag seytaane dafay am doole léeg-léeg ci doomu aadama yi surtout ci wàllu politik su coow amee rek dëgg réer coow am na dëgg réer na am na ñu réeri ci jullit ñi xaat kan moo di Xasan xamuñu dara rawatina sax sidna ali teguñu leen fen loolu waral ñu ci bari wan ahlu bayti rasul gannaaw dem ànd ak muawiya koo xam ne li ëpp ci say maam ay ceddo lanu ndax ku ne xam na ne mu muawiya umayya ko jur te gis ngeen umayya fi mu jaar ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba tuubam ñu bari ñu ngi ci sikki sàkk ndax wér na wala wérul ah ku ne gis na diggante ñaari famille te muy banu hachim ak banu umayya li ci xew yëpp ñi jàng histoire xam nañu ko kon ci wàllu lislaam mënuñu yamale mu jëmu ju tedd ji di Xasan di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Fatima jur ko sayyidina Ali jur ko mu di sët direct ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bëgg ko yemale ak jëmm jële nga xam ne boo toppee càllaleem ay caddo kese la mu di Muawiya waaye Seydina Xasan gis na ne l'islam am na crise te crise bi mooy lan wuute bi dox seen diggante ba njaboot gi taxali ko nekk ñaari cër bii cër Muawiya yor ko bii cër Xasan eh, ibn Ali yor ko Xasan juróom benn weer la atte waaw juróom benn weer la atte bi mu attee juróom benn weer gis ni l'islam bi am na crise waaw gis ni l'islam bi am na crise mu daal di bind lettre Seydina Muawiya lu mu ko wax daf ne ko ah man de li ma gis ci diine ji neexuma te mooy wuute bi dox ci diggante jullit ñi ba ñu nekk ñaari cir su ma sañoon daal ñëpp dañuy ànd nekk benn su ko defee ñuut benn amir boo xam ne mooy nekk ca kanam yilif leen su ko defee jàmm am li xewoon ñu fàtte ko man nag bis bi ki tey dugg naa ci sa suufu kilifteef ci wàllu zaahir waaye xaqiiqa dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla imam Hassan moom mooy xalifa bi waaw mooy xalifa bi xam nga loolu lu muy niru ku ne xam na ne keroog bi Yuusufa duggee Égypte nekkul buuru Égypte amoon na ko nekkoon buuru Égypte waaw waaye moom benn ministère rek la géré woon waaye ku ne xam na ne sirru la doon doxal Égypte yàlla nga ko def ci Yuusufa kon mu ngi ci suufu kilifteefu buur bi ci wàllu zahir waaye daanaka xaqiqa ba yëpp moom yuusufa moo ko yenn woon alayhi salaam noonu la mel ci diggante sayna xasan ak muawiyatu bne abi sufyan sayna xasan moom daal jiitalul ay intérêt comme ni ko nitu jamono di defee moom daal dafa jiital intérêt l'islam bi ndax gis na lu bare nga yàqu mu daldi waxtaan ak Seydina Muawiya ne ko daal li ma bëgg mooy ñu ànd nekk benn ñu fexe ba nekk benn force boo xam ne li ñu bëgg yépp ci lislaam bi lislaam dana ko am man nag nangu na wàcc sama nguur jox la ko su ko defee ma nekk ci sa suufu kilifteef ndax jullit ñi mën a am jàmm ndax lislaam itam mën a am ndam mbokk yi jëmm ji bu ragalul woon yàlla su nekkul woon jaamukatu yàlla bu nekkul woon ku yiw su nekkuloon ko sàmm su nekkul woon koo xam ne àdduna ci gannaaw loxoom la ko teg lii du ko mën nitu kese kese mënul lii kon nag gàcce ngalaama Seydina Hassan yor ji koy maamam moo tax mu mën lii delloo na cër bi muawiyatu bnu abi sufyaan ngir lislaam bi am jàmm kon nag politiciens yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi liñ leen di dénk mooy ñu am jikkoy jëmm ju tedd ji waaw fu réew demee ba nara yàqu ña am xel te am jikko nanu fexe ba seet nu ñu waxtaanee ba réew ma jag donte sax dana am intérêt yu ñu perte waaye pour intérêt réew mi intérêt jullit intérêt citoyen yi war na mën a tax ñu bari teggi seen tànk ci yu bari lii la Seydina Xasan doon jàngale muy njàngale mu set mu rafet moo xam ne dañ koy roy ba ilal abad ñu ne nag jëfam ju noble ji mu def jëf ju rafet ji mu def moo tax yàlla terale ko imamul mahdi di génnee ci ay sëtam waaw di génnee ci ay sëtam kon nag ah wax dëgg yàlla yey na yey na lool ah ñu mën a nangu ne cër bi moo ko moom moo tax jëmm ju tedd ji saa bu génnee rek bu dee lim ay maamam daf koy daytale ci Seydina Hassan alayhi salaam su ko defee sëtam boobu di imaamul mahdi sirru bi tax mu bokk ci famille ci askanu Xasan mooy jëf ju baax jooju nga xam ne maamam defoon na ko ci benn le kàddu jullit ñi kon buñ la laajee imaamul mahdi fan lay jóge nga ne mu ngi jóge madinatul munawwara ñu ne lu ko dugal màkka mu ne dafa dawe kon nag am na lu tax mu dawe madinatul munawwara jëm màkka waaye Eh, mën nañu wax ne cëram la doon jëli si ndax jullit ñi ajoo woon nañ ila muxallisin yuxallisuhum dégg nga ci koo xam ne dana leen mën a xettali ci musiba yi ñu nekkee ndax àdduna yàqu woon na ba nga xamante ni wax dëgg yàlla jullit ñi ñëpp leen jëppi te commencé na waaw jullit ñi yàq nañu seen der yàq yàq nañ ñoom ci seen bopp sax seen der ba ñëpp jëppi leen waaw ñëpp jëppi leen waaw waxe ñu ne ah tubaab yi sax ñoo gën jullit ñi parce que tubaab yi au moins que am na nañu jikkoy lislaam mais jullit ñi amatuñu jikkoy lislaam bi maanaam yaru lislaam dafa mel ni ci tubaab yi nga koy fekk mais julit ñi l'islam lamiñ wala nu yor waaye yoruñu xol ba yoruñu itam comportement bi looloo tax crise bu rëy nekk ci ñoom kon nag aajo woo neen mu xallis boo xam ne moo leen di xettali ba delloo si at tarbiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam soo gisee suñu këru di suñu këru tariqa yi nga xamante ni ubbi nañu ko mag ñi dañuy daal di jéem rek ci li yàqu pour ñu defar ko moo tax ñu ubbi ay tariqa pour jéem a fexe nu ñu defaraatee xolu jullit ñi ba génnee ci ñoom jikko yu bari loolu rek moo indi tariqa tariqa maanaam hôpital la boo xam ne ña ca nekk ay cardiologue leen seen liggéey yëpp mbiru xol la ci wàllu baatin waaw moo tax ngay dégg <clears throat> ci euh, waykatu wolofal yi daan wax naan ku mel ni sëñ Babacar ñu naan mbay docteuru baatin bi waaye mbay docteuru baatin bi lan lañ ci jublu muy sëriñ bu ne docteuru baatin nga war a nekk war liggéey ci sa taalibe ba bu soxor nekkee ci xolam nga dindi ko bu fa bëgg àdduna nekkee nga dindi ko bu fa mbañeel nekkee nga dindi ko bu fa tabaarakallaahu eh, eh, sàggan ci wàllu jaamu sa jaamu yàlla nekkee nga fexe ba def ci ak cawarte noonu la mag ñi doon liggéey ci euh, tabarakallahu seen tariqa yi ñu ubbi moo tax boo demee ñu defal la tarbiya mais gis nga tariqa yooyu sax crise dugg na fa léegi waaw crise dugg na fa ba xikma euh, bi ko mag ñi fondé woon léegi daanaka dara nekkatu fa ndax ña fa nekk moom do ñu ci bari nekkatuñu ay cardiologue ñoo xamante ni cardiologue baatin lanu waaye boo dee xool àdduna rek leen fay for waaw adduna rek am nga sax même ci wàllu eh, eh, zahir muy eh, bu njëkk ba médecin la doon ndamam mooy faj ba mu wér waaw léegi nag médecin léegi loolu du seen ndam de soo ñëwee hopital xaalis lañ lay njëkk a laaj kon ñoom seen xikma ci biir hopital bi mooy nu ñu fi amee xaalis waaye xikmam médecin yu njëkk ya ci biir hôpital seen bëgg-bëgg bi gën a rëy mooy bu jarat ñëwee ñu faj ko ba mu wér waaye léegi dañ lay laaj xaalis kon daanaka secteur yëpp yàqu baatin ak ci zahir moo tax imaamul mahdi bu ñëwee mu xalis lay nekk danañu jaayanteeg moom ci bayna rukn wal xajar al aswad foofu la ñuy jaayanteeg moom su ko defee léegi crise bi amoon foofu ci Makka mooy ban xalifa leen war a fal léegi gis nañ xalifa boo xam ne fal nañu ko te deret taxul ñu fal ko mérite moo tax ñu fal ko ndax yàlla defar na ko jox leen ko ñu wóolu ko nag topp ci ginnaawam pour lan pour mu yëkkati lislaam ñu ne foofu nag daañu ko wax ne ko antal xaakimu lana tey day doy nga ñu atte attekat fal nanu la anta maliku naa tey yaay suñu buur waaw ah lan moo xew ndeke ca Syrie am na ñu fa nekk dégg ne Makka fal nañ fa xalifa loola naqari leen waaw wala boog ci biir Makka am nañu opposé Imamul Mahdi ci li ñu ko fal te suri amoon na fa puissance boo xamante mën na leen jàppale ba Imamul Mahdi bii ñu fal ci kaw pëccëxoo ak xulo xëy na ñooña daan leen mën a yónnee renfort boo xamante nii dana leen mën a jàppale ba ñu rey wala ñu nasaxal xalifa bu bees bi ñu fal looloo taxoon am renfort bu jóge Cham muy ay soldaar yoo xamante ni dañ leen a yebal lu tax ñu yebal leen pour ñu ñëw xeexak ak imaamul mahdi ñooñu ngay soldaar yi njëkk a génn def face imaamul mahdi pour xeex ak moom foofu ci màkkatal mukarrama ñu ne dafa am ñu nekk biir màkka ñaan dimbal ñu ne déedéet dafa am ñu yëg xabaar ba foofu te bëgguñu foofu nekk puissance ñu ñëw pour nasaxal leen waaye soldaar yooyu jóge Syrie jëm si euh, makkatal mukarrama pour xeex ak imaamul mahdi lan moo xew ci ba ñu depare ca yoon wa yegg si nanu wala yegg si wuñu ñu ne bi ñu falee imaamul mahdi ci Makka nee na yebal nañu benn armée bu rëy bu jóge Shaam pour mu ñëw yàq xilaafaam xeex ak moom ci biir Makka waaye imaamul mahdi jógewul foofu ci xurumu Makka ba fa la toog nee na bi nga xamante ni yàlla dogal na soldaar sa départ jëm si mag pour xeex ak imaamul mahdi ba ñu ñëwee ba ca yoon wa ba nga xam ni dugg màkkaa ca des yàlla dafa feeñal kéemtaan bu rëy kéemtaan bi mu feeñal mooy dafa digal suuf mu na soldaar yooyu bi maanaa dañoo jékki-jékki rek suuf mel ni genre bàmmeel boo xam ne dafa fett rek daal di xar mu mel ni tremblement de terre moo am soldaar yooyu yëpp daal di dugg ci biir suuf suuf tëjuwaat ci seen kaw kooku mooy premier miracle bi nga xam ne wane na ni kii yàlla feeñal boroom borom rey baatin la joo xam ne yàlla koy jàppale waaw na mu jàppee la woon Seydina Muhammad ca Badar ca Uhud ak ca Xunayn ak xare ya mel ni moom wax tiboon na suuf sànni ko suuf sa dàq xare ba kon nag suuf soosu nga xam ne moo jàppale si Seydina Muhammad ba mu jaaxlee ca noon ya nga xam ne dafa tibb suuf rek sànni suuf sa mel ni <coughs> soldaar su song noon yi di leen faagaagal ba ñu daw suuf soosu tey moo dimbaliwaat sëtam bii di imaamul mahdi bi soldaar yooyu jógee Cham jóge suri pour ñëw songu si ko pour fek attaquer ko ci màkka pour ray ko yàlla daf len khasf moy lan dafa digal suuf suuf mëdd len ñom ci saa lanu dé motax sayyidatuna aisha radiyallahu taala anha waxna na ne taxaraka rasulullahi الله alayhi wa sallam yowman wa huwa naim nee na benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon nelaw nee na mu yëngu nag ci biiri nelawam nee na yëngatu boo xam ne jaaxal na ma mënu ma ko woon ci moom yëngatu yi koy gént le léeg nga gis ko di gént tabarakallah ci biiri nelaw ba def acte boo xam ne mu jigi sax da koy dóor ne ko lan la yaa ngi gént <coughs> ah te comme moom mooy soxna si moo tëdd sang bi nee na bis daal tëdd nanu ma gis ci moom yëngatu bu jéggi dayo dégg nga nee na bi mu yeewoo man Sayyiduna Aïcha maa ngi giñ ci sama sama baay ne dégg nga laaj naa ko laaj bi dama ne ko yaa rasulallah yow yonent yàlla bi maa sha'nuk lu waral sa yëngu bi lu dal dal tey di sa yëngu bi tiital na ma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko nettali histoire bu yéeme daf ne ko man di dafa am lu ma yàlla woon ci sama gént gi li waral yëngu bi daal gént la gént gi nag moo di gént gi moo di dafa am ku ma yàlla wan ci samay sët am naa benn sët boo xam ne daal mu jug jamono lay ñëw yàlla daf ma ko wan nag waaye li ma jaaxal mooy am na ay noonam yu jóge Cham Suri di ko songu si bi ñu koy songu si nag gis naa ne soldaar su doon ko songu si bi ñu ñëwee ba mal Makka suuf daf leen a wan kenn desut ci ñoom ña mucc ca ñoom daal bu fekkee am nañu mucc mooy ña nga xamante ni euh, ñu ngi doon jéem a siiwal xabaar bi pour soldaar si bañ a yegg si ndax bu ñu yegg si woon mën nañoo faagaagal imaamul mahdi ak ñi ànd ak moom ñooñu daal xëy na ñoo ciy mucc waaye képp koo xam ne yaa nga woon ca soldaar sa te amuloo woon yéene boobu rek mucculoo Seydina Aïcha ne ko waaw euh, man de li ma ci jaaxal mooy ñaari buur yi léeg-léeg ñuy xeexloo koo xam ne xeex bi buggu ci dara xeex bi bëggu ci dara mbokk yi léeg-léeg da ngeen di gis yu mel noonu xam nga danga nga gis américain boo xam ne jullit la waaye nag mu ngi ca armée ba ñu jël ko yóbbu ko Irak xam nga dem gi mu dem neexu ko ndax leer na ko ne ay mbokki jullitam lay rey kooku la tuddee al maanaam ki ñu ki nga xam ne ñàkk pexe la deme dafay am léeg nga gis ko sax ci suñu réew mi ndax léeg nga gis ko ñu yebal yaman te bëggut a dem ndax bëggu faa jullit ndax man qatala muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam ku rey jullit te tey ko safara nga jëm kon bu fekkee soldaar bi jàng na loolu xam ko waaye nag ñàkk na pexe ndax tënku na ci loi boo xam ne fokk mu dem guerre yi te bu demee ñamuy rey ak ñoom ñoo bokk pas-pas kon mbir mi day doy waar kon amaana amoon na ñu jóge woon ci armée boobu ji jublu si Makka te xamoon nañ ni ki ñuy xeexal mooy imaamul mahdi ñooñu bëgguñu woon a ñëw waaye amuñu pexe ñu ci biir soldat sa loolu nag la sayyidatuna Aïcha wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw naka la yàlla di mën a alagee mbooloo moo xamante ni amaana sax soldaar yooyu am na ci koo xam ne bëggul woon waaye dañ ko forcer yonent bi doon ne te dañ ko forcer te bëggul sax yàlla dana ko alag ca mbooloo ma ndax mu ngi ci seen biir mu ne ko waaye lenn rek mooy mooy kii bi mooy moy différence bi moy euh kenn ku ne ëllëg yowmal xiyaam ci armée bobu nga xamne ño doon xex sek imamul mahdi te yàlla alak len ca yoon wa kenn ku ne se yene ca ngay dekke kon ki nga xamne yene mo doon xex ak imamul mahdi yene mo doon xex ak l'islam ndax booba l'islam moy imamul mahdi ak jabotam donte ñi ci des ñëpp daañu wuyoo turu lislaam yàlla jisul seen lislaam lislaam ba mooy imaamul mahdi mi nga xam ne moo représenté maamam su boobaa kooku moom mooy représenté lislaam mbooloom ci boppam mooy lislaam moo tax ñooñu doon ñëw yàlla artu leen ca yoon wa maanaam yàlla kar leen ca yoon wa rey leen kon képp koo xam ne si yéene moo doon xeex ak jëmm jooju ci yéene boobu ngay dekkee te boo dekkee ci yéene boobu safara nga jëm ña nga xamante ni amuñu woon yéene ba waaye dañ leen a forcé te Seydina ay Aysa junj ko sang bi yonent bi nee na ñooñu duñu dugg safara ndax dañ leen a forcé waaye nag daañu dee ànd ak soldaar sa waaw daañu dee ànd ak soldaar sa kon mbooloo moomu mooy mbooloo mu njëkk a génn attaqué Imamul Mahdi moo tax euh, imaamul mahdi fal nañu ko wax naa la fi ko fale ñu ko fale ci dëkk bu ñuy wax màkkatal mukarrama ñu ngi ko fara fale ci barab bu tedd bu ñuy wax alxurum almakki mooy foofu jàkk ji nekk te kaaba ga nekk fa ñu ko fale ci diggante ñaari Eh, tabaarakàlla barab yu am solo muy maqaama Ibrahim ak xajarul aswad xajarul mooy xeer wi nga xam ne mu gën a tedd ci xeer yi ndax xeer wi mu ngi jóge ci yàlla looloo tax yonent bi fóon ko waaw moo tax yonent bi fóon ko li mu jóge ci yàlla moo tax yonent bi fóon ko fóon loo ko jullit ñi kon xeer bu tedd la waaw am na sax ñuy wax naan xajarul aswad eh, bi muy wàcc dafa weex tàll bakkaaru nit ñi moo tax mu ñuul am na ñu wax ci boroom xam-xam yi ne loolu wax bu yàqu la ndax nee neen daal waxuma nag sama wax dama ne leen ci boroom xam-xam yi wax nañu ne xajarul aswad nan ko bàyyi ci ñuulaay bi ndax ñuul du sikk waaw ñuul du sikk waaw yàlla couleur yëpp a yem ci moom bu mu baaxal rek booba baax na moom daal def na xajarul aswad mu di xeer bu ñuul comme ni nit ku ñuul nekkee nit ku ñuul kon am na xeer bu weex am xeer bu ñuul waaye xeer bu ñuul bii nag am na ngëneel ci biir xeer yi bu benn xeer amul waaye nag dafa ñuul ñu ne bu fekkoon bàkkaar ko taxal kon ku seete ni yonent bi du ca teg tuñam di ko fóon du ca teg bakkanam bu tedd ba di ko fóon ndax kon xeer bi dafa salte dafa salte xeer bu ñu génnee ci euh, douche ñu ne la dafa taq sobe xeer boobu kay wax dëgg yàlla ah soo civilisé bëgg sa bopp doo ci teg sa bakkan wala nga euh, di ca teg sa loxo kon xajarul aswad xeer la boo xamante ni yàllaa ko ñuulal mu yor melokaan wu ñuul mu soppal ko boppam jox koy maqaama wàcceeku nit ñu baax ñi bëgg ko di ko fóon ngir jëmm yàlla moo tax xajarul aswad nañ ko bàyyi ci ñuulaayam boobu waaw moo tax nit ku ñuul boo xoolee boppam na xam ne la Sidi Xaaji Maalik Si waxoon waaw bañ ko ne eh, dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax diwkat diwa ko ñaanaloon ba mu doon li mu doon mu ne ah diw moomu ko ñaanaloon di shérif la shérif la di dogitu yonent bi ah man nag ah du shérif ci waxin a ah, ña ko doon ñaanloo ne ko yàlla ja nekk ci shérif ba moo nekk ci yow ak li ngay ñuul ñuul yépp yàlla ja nekk ci shérif ba moo nekk ci yow mu ne ko jama bu ñu laxas ci perkaal bu weex ak bi ñu laxas ci muylus bu ñuul benn la ci valeur am wàññeekuwul bu ci nekk rek tabaarakallaahu euh, jamaa ba ca boppam bu dee ni dix milliards lañ koy jaayee bu ko laxasee ci muylus bu ñuul dix lay jar bu ñu ko laxasee ci perkaal bu weex itam dix lay jar kon nag couleur bi ko ëmb taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy baatin ba ci biir te mooy jamaa ba kon nag li nekk ci shérif yi moo nekk ci yow si malik kon dañoo bëgg nga ñaanal ñu ah ñooñu xam ne nitu yàlla parce que nitu yàlla day làqatu day damm ay maqaamaam ndax wax ne ne xam yàlla gën a yomb xam yu ndax wali yu dafa jafe xam kon imamul mahdi ci diggante xeer wu tedd wu ñuul woowu ak maqaama Ibrahim foofu lañuy jaayante ak moom mu nekk xalifa maamam nekk imaam moo tax ku jaayantewul ak moom dontib jullit nga boo dee dee nga dee weenu ceddoo bi maanaa dee nga deewu ko amul diine soo dekkee dangay dugg safara moo tax bu feeñee fukk ñëpp jaayanteeg moom nee na euh, imaamul mahdi li muy njëkk a def mooy indi ak maandu bokk na ci jikkoom mooy ku maandu la dana fexe ba ki a néew doole ci xeet wi di jot ay àqam ak yelleefam ni mu ware du ko ca xañ lu day lu day ni pépp suuf ci lum ko war a jox ci àq ñemewu ko foofu la maandoom di yegg moo tax jamonoom ñëppay riche ñëppay am alal parce que moom du aaki moo alal ji moom ak fameem wala moom ak ñi ko wër mukk ni buuru léegi yi di def nga xam ne ku ci toog falu rek yaay lekk ak ñi la yaay lekk yaag sa njaboot waaw mukk imaamul mahdi nag bu toogee doom ji mu jur ak ki gën a baadoole ci jullit ñi ki gën a soriw askan gën a xeebu askan ak doom ji mu jur lay yemale ci baytumaal la muy jox njabootu boppam moom lay jox ñépp maandu googu ci wàllu ni muy séddalee alal gi maandu gi ca na muy attee tabaarakallaahu su ko defee dafay ànd nit ñi e, di teewe siini dëj e, di di bokk ak ñoom seeni naqar e, di tabaarakallaahu yittewoo siini mbir waaw gis ngeen sëriñ si léegi tabaarakallaahu bëri na ci sëriñ boo xam ne pour nga gis ko rek problème la bu président ñëwee mën na koo gis léegi bu ministre bi ñëwee mën na ko gis léegi su député bi ñëwee mën na ko gis léegi waaye yow taalibe bi bi am pas-pas ci moom soo ñëwee daañu la buux ca bunt ba daañu la gundoxataal su ko defee bëkk néeg yi nag jël sëriñ si def leen wutukaayu xaalis waaw su ko defee ñi am pas-pas te woyuf mbubu fële leen leen di teg ñi nga xam ne yor nañu as tuut ñoom la ñuy fexe di leen dugal su ko defee di jaay sëriñ bi nag ñoom di tabax ak i jëndi oto moo tax eh, sëriñ si yàlla jox mbooloo boo xoolee seeni bëkk néeg tabaarakallaahu doo xam fan la ñuy jëlee alal waaye ci ger rek ñu ci bari ci ger rek ger rek imaamul mahdi nag moom du mel noonu day nekk nit ku neex a gis waaw day nekk nit ku neex gis bu ko defee muy déglu soxla jaam waaw di xam di jaxasoog ñoom ni ko yonent bi daan defee di dem ci marché yi ñu gis muy dox ci mbedd yi gis waaw yonent yu baax yëpp ñu naw leen muy sidna isa alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp dañ daan génn di dem ci dëj yi di dem ci jàkka yi di jiite waaw waaw benn waay daf ma ko wax ndeysaan mu ne ma ah man day sëriñ ñu njëkk yi la ma kii ci ñoom mooy ñooy jiite nit ñi ci jàkka ji jiite leen ci wadifa yi waaw jiite nit ki ci ci jiite nit ñi ci jàkka ji ba noppi jiite leen ci wadifa bi ah loolu baax na parce dana encouragé taalibe talbi bi gis serignam ci war wi dana ko encourager encouragé waye euh jamono bi kilifa yi naqaree gis bi dafa am lu bari lu muy jur ci ay crise boo gisee firawna ñu wax ne suñu borom am na cër bu mu ko jox ak li muy bon bon yépp ba rayewu ko ci biir këram firawna cër bi ko yàlla jox mooy euh, na daawul bàyyi nit ci saalam mu toog fa lu yàgg suñ ne ko diwa ngi lay seet rek daf naan na yegg si waaw gaaw a recevoir doomu aadama ngir jox ko ak xam maanaam kilifa goo xam ne baadoola ak ñëpp ci yam boo ñëwee soxla ko rek mu ne na yegg si waaw am na ñu wax ne bokk na ci jikko yi ko yàlla cërale ba tax rayewu ko ci biir njabootam da ko yóbbu ba ca géej ga rey ko rey bu am sutura waaw feeñal yaramam nag pour nit ñi xam ne Firawna dee na ndax jàppoon ne na rek yàlla la moo tax bu disparaître loon noonu rek ñu jàpp ne ba léegi naa ngay dund Égypte moo tax yàlla génne yaram mi mu mel ni kon imaamul Mahdi day nekk nit ku yomb a gis waaw waaw ndax mooy may boppam Eh, nit ñi pour man di eh, ndax dañ ne sàkket xeer wa ko itee daf cay dar daf cay kon nag boo bëggee eh, dimbali nit ñi te nga jafee gis ah, ah su boobaa ndimbal la loo am am yéene dana des waaw imaamul mahdi nag moom kuy nangu boppam la daanaka yenn protocole yi nekkul ak moom moo tax muy mën di résoudre problème mu jullit ñi kon ku maandu la ci ay atteem Eh, ku séddale boppam jullit ñi la kenn ku ne am nga ci sa cër te koy jël nee na jamono itam dana yar nit ñi ba kenn ku ne tabarakallaahu su deene policier nga sa salaire dana duun ba dootoo sàccati ndax bëri na sàcc goo xam ne ñàkk doy moo koy waral ñàkk a doy parce que su fekkee ah, policier bi kat masalan wala Euh, maire bi wala fonctionnaire bi nga fal wala journaliste bi wala douanier bi wala gendarme bi wala leneen ci fonction yi nga xam ne ñu ngi leen di gis fayoo leen lu doy te dund bi cher na te metti waaw ku koo xam ne trois cent mille la war a dunde par weer ci diggante courant ndoxam fayu école xaleem wala sax seen paas yaag ya ca topp ak soxlay boppam su ko calculer àgg na ci trois cent mille juróom benn fukki junni yow nga koy fay cent mille kon yeneen deux cent mille yi kay ci pexey boppam la koy lijjantee waaw loolu lay indi tabarakallahu yenn jubadigoo xamante ni ñàkk a jekk koy waral loolu la Seydina Omar daan wax ba mu falee ne bu leen sàcculoo samay fonctionnaire te mooy lan di leen fay lu doy waaw fonctionnaire bi boo ko dee fay lu doy wax dëgg yàlla boo sàccee rek dafa jubadi waaw moo tax Europe da nga fa nekk doo gis ku la arrêté parce que lañ leen di fay doy na leen waaw pour nga ger nit dana dana jafe waaye Afrique nag lii seen problème mooy ah, nit ki day liggéey bay bëgg a dee te duñ ko fay nañ ko war a fayee loolu nag moo indi yenn problème moo tax imaamul di moom bu ñëwee salaire yi day doy waaw dañ lay fay lu mat te say àq kenn du ci jël lu toll ni pepp suuf waaw say droit dang koy xam te dang koy jël waaw sa devoir itam da nga koy def ndax noonu lay attee nit ñi li nga war a def da koy def mais liñ la war a jox itam dañ la koy jox atte bu maandu boobu ci jamonoom moo tax suñu boroom di euh, euh, barkeelal suuf su asamaan tawoon benn yoon sax suuf dana saxa saxa saxa sax lu nit ji day sax ci benn taw boobu ndax kontaan gu yàlla kontaan ci buur bu maandoo gis nga buur bu maandoo dafay naatal réew buur bu maandoo réew ma day am barke waaw day naat te alal ja kenn du ko sàcc faux billet du am trafic du am waaw waxuñu alalu tappale buur sumando alal ju lew ju set moy am ndax yàlla day barkel kaw barkel suuf yàlla itam non not kep ko am doole fune alal di jóge ndax mandu ga mokay waral gis nga ki ñeuk joxe exemple juromelu euh euh khulafa ur rashidun kan moy juromel ba moy Omar ibn Abdul Aziz al Ashaj Omar na Abdul Aziz ñaari at la atte ñaari at waaye ñaari at yooyu maandu gi mu tëral doon ko doxal taxoon na ciili euh, sax ñemeetu la fëkk cuuj bu ñu ko laajee lu tax mu ne buur bi day day bañ ko tooñ looloo tax sañatuma tooñ ganaar bay jël cuujam noonu la ko mag ñi waxee ndax koo xam ne dem na ba silmaxaye sax jox na leen saleer waaw silmaxa yi mënta liggéey sax wutal na leen salaire di leen dimbali dem na ba boo gàddoo sa sarax di wut koo ko jox ci ñaari at yooyu doo ko gis ndax ñëpp am moom Muhammad ibn Abdul Aziz ca maandoom ga moo tax crise yi am yëpp mooy lan euh, suñu problème suñu diggante la ak yàlla il fallait ñu defar suñu digganteek yàlla te mooy lan buur yi atte ak ñi ñu yilif ñu leen di dimbali ci àtte ba ñu fexe ñoom buur yooyu ba maandu ci seen bopp maanduloo seen njaboot ndax loolu mooy résoudre problème yi waaye buur bu maanduwul ña koy jàppale maanduwuñu ñuy noote ña féeti suuf crise rek kay am ay problème rek kay am ay jafe-jafe rek kay am imaamul mahdi nag li tax jamonoom doo gis ku gàddu sarax di sarax nit ndax ñëppay am mooy maandu gumu maandu lépp teg ko ci yoon waaw kenn gënul kenn njaboot gépp a yem fa yàlla waaw su ko defee alal ji nga xam ne ñëw na ci baytul maal mu yemale ci ñëpp mbokk yi gis ngeen yonent bi ci jamonoom ku ne xam na ni Ali ibn Abi Talib amuloon dara te yonent bee ko yaroon kon yonent bi mënoon na wax ne ñëpp déggal nañ ma baytul am na alal mu ciy jël di jox Ali mais defu ko sayyidatuna Fatima moo doon sëyeg sayyidna Ali yonent bi mënoon na wax ne sama doom de ki muy sëyal amul dara muy jël ci baytul maal di ko jox waaye defu ko de ba bis doomam ju tedd jooju ak ñàkk taxoon ak jaf-jafi dund yu tar taxoon na sayyidatuna Fatima ñëwoon ci baayam yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko kër ga de dara nekku fa te sama jëkkër yorul dara ma bëggoon nag li fi jullit ñi indi ci baytul nga jox ma ay jaam yoo xam ne daañu ma mën a jàppale ci sama liggéeyu kër te nga jox ma itam dund bu doy boo xam ne danaa ci jàpp xanaa kon yonent bi dégg na tawatu ki gën a cher ci moom ci àdduna te mooy doomam bi nga bi mu waxoon ne lu ko metti rek metti na ma kon xam nga ne mettit boobu naa Seydatuna ma doon daj ci biir sëyam ci ñàkk metti woon na yonent bi waaye taxul yonent bi di jël ci baytul maal ay aqi miskin di ko jox doomam mukk defu ko def ne sayyidatuna Fatima mu ne ko mu ne ko lii fi ñëw de dafa am ñu ma ko yàlla joxloo te ñooñu laa ko ñoom laa koy jox yow nag sama doom te xam nga fi nga féete ci man maa ngi lay ñaan nga jàpp ci subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سابو جولي تبا نوبي تنجا جابو تي لي تي موين تو كيس سي سيدتنا فاطمة جوكي يارك تيجين دم لكو بايام وخ مو جابو تي يوبالي ول بن جام يوبالي ول ساكو سنغوف يوبالي ول ساكو مبوك يوبالي ول ساكو جرتي نون لا دمي كلو خاي كيسي ngir yonent bi daw rek jël ci alalu julit ñi loo xam diko def ci bopam wala mu koy def ci domam jikko joju nak la imaamul mahdi tabarakallah di andale ci atem yu rafet yi motax ñu wax ne dana fi def euh amna ñu wax ne mission amna ñu wax ne juróom-ñaari at la am ñu ne dedet juroom juróom-ñetti at la am ñu ne dedet juroom ñenti at la waaye mission boobu yëpp mu fiy doxal juróom-ñeenti at yi yàlla dana ko naatal ba ku dul jullit da nga ñee jullit ñi ci barke bu ñu am alal ju ñu am wërsëg yu ñu am ak yaatuwaayu xéewal yoo xamante ni ku nekkul jullit dana immigré ji seen ci réewu yéeféer yi di fekk si jullit ñi ngir koom-koom bu leen yàlla jox lu ko waral maandu gi moo tax boo gisee tubaab yi naan tubaab ya eh, ay yéeféer lanu yàlla da koy jox alal ju bari ndax ëllëg àjjana amu fa dara wax ju yàqu la réew yi ñu wër ñaata réew yi yéeféer fi nekk fii ci Afrique ah demal ay Congo demal ay Rwanda ah ba ci Guinée Bissau gi ah, réew yi ñu wër ci bari duñu réew jullit ay réewu yéeféer leen amuñu dara parce que seeni njiit maandu wuñu kon lu waral France gëlee yàlla dafa xeewal lu waral mu def ko Suisse lu waral mu def ko Allemagne parce que dañu respecté doomu aadama respecté seeni peuple di leen jox seeni àq kon bépp réew boo xam ne ña ko jiite yërëm nañu ña ñu jiite di leen jox seeni àq di leen jox seeni yelleef ak seeni droit fokk yàlla dugal fa loxoom looloo tax ñoom tey ñu nekk benn force boo xamante ni dara mayu leen ko lu yërmaane bi ñu am ci seeni peuple kon nag képp koo xam ne moo dëgg yàlla da nga bëgg jël affaire bi rek teg ko ci diggante jullit ak yéefar déedéet imaamul mahdi boo gisee mu am doole ji mooy yërëm na ñi mu yilif te loolu la yonent bi mujjee dénkaane ci dundam julli ak yërëm ki nga yilif waaw sàmm maanaam sàmm àqu yàlla ci yow te moo di julli waaw ak yërëm ki nga yilif kon nag lii fi imaamul mahdi indi exemple la ci bu yërëmee moom peuple bi mu yilif te muy jullit ñi ak umma bi jàngale na joxe na leçon dana tax jëkkër dana yërëm jabaram ndax def naan kilifa gi kat yërëm nañu kon nag ñun tam nañu yërëm ñi mu yilif dana tax ki nekk ci société bi dana yilif ñi mu tabaarakallaaw ba du mucc seen i ax du leen exploité ku mu war a defal contrat dana la ko defal waaw la ca war yëpp dana ko def su defee loolu lañuy ñuy jàng ci imaamul mahdi ba day dem ba maandu day daal di law ba dootoo gisati tooñ ci diggante jullit ñi waaw su ko defee nag yàlla daal di kontaan su kontaanee nag wàccee barke boo xam ne ci la ñuy ñëwee jullit ñëpp tabaarakallaahu kon jëmm ju tedd ji la yàlla di yebal mu ñëw waaye nag bu xasee ñëw ba noppi dana am leneen lu xew lii xew mooy jullit ñi daañu am puissance ak doole joo xamante ni kenn mënu leen a dékku ndax ni ñu nekkee benn waaw kenn mënu leen a dékku su ko defee nag adduna bi yëpp ñee ñuy sang ci adduna bi tabaarakallaahu ñu nekk buur dégg nga di fal di folli di bu mi loolu nag mooy merloo kii ñuy wax masiixu dajjal su ko defee day génn su génnee moom masi masiixu dajjal ñaara koy yëkkati féewali jullit ñi woote ak yàlla jéem a rey itam imaamul mahdi su jéemee rey imaamul mahdi nag imaamul mahdi dana daw bu dawee fan la jëm am na fu muy làqatu ji ci siri siri ci benn montagne boo xam ne foofu la ko masiixu dajjal encercler euh, montagne bi pour jéem a rey imaamul mahdi mbokk yi ñu ubbi téléphone yi tabarakallahu e, mu mel ni comme ni leen ko waxee rek euh, xam ngeen ne jëmm ju tedd jooju di imaamul mahdi Eh, yàlla ñu koy baaxe may ñu ko gis ngeen lim ñuy indil ci juróom-ñaari at yi ci ña saxal juróom-ñaar at yi saxal juróom-ñett ci juróom-ñeenti at yi ci ña saxal juróom-ñeent gis ngeen lim ñuy indil mooy xéewal guy baawaan goo xam ne dafay am lu ko lal li ko lal nag moo di ak maandu maandu lu am solo la waaw waaw borom xam ne dañuy wax ne wala adlu bihi salaaxul umam bi maana maandu ci la nation yi di defaroo maandu ci la nation yi di defaroo xam nga boo demee ci xilaasu zahab am na fu Sidi Xaaji Malik Si di waxee ne aama thamani wafaatul jaddi daa hanamin wa xaatamin وانو شروان ذي الكرم خمغا سيدي حاجي مالي سيدي فتو بنيار ني اسوار نونا لين بتو لين شي سيرة يونتبي صلى الله عليه وسلم مي بنيو أمولون جيكو كن دولين تود موي أنو شروان أك حاتم نيوم نيار نيب دانيو يور جيكوي نوبل xaatam ku ne xam na ne buñ dee jël misaal ci maandu gannaaw yonent ci eh, ci tabe gannaaw yonent bi xaatam ngay wax fa tabe woon gaaw ci joxe waaw moo tax lu mu joxe rek yàlla joxaat ko lu ko ëpp ndax dafa mën a joxe lu joxe rek yàlla joxaat ko lu ko ëpp ndax moom dafa jëloon boppam rek def ko lantinoo waaw mas na bis am na bis mu am Euh, ku ñëw di ko di si sox soxla fekk muy génn waaw teg ga mu ngi ca def teg gi gi mu teg ci kaw fas wi rek daanaka euh, or la waaw ndax dañ ko doore ba tabarakallaahu ci suufu teg bi mu ngi ca teg xaalis bu bari loo xam ne àgg na ci téeméeri junni masalan naka lay génn dajeeg waa ji di dugg si mu ne ko xaatam laay seet mu ne ko ah man la de mu ne ko dama amoon soxla sàngam pour wax la ko mu ne ko ah maa ngi nii di génn de waaye nag comme euh, yow laa dajal nga wax ma sa soxla léegi bàyyi rek ma jox la fas wi ak lu nekk ci kaw fas wi nga jël ko ndeke boobu xaatam mu ngi ànd ak doomu fas wi mu ngi ca topp ndax fas wi fas wu jigéen la ak jaamam bi nga xam ne mooy bëkk néegam topp ci ginnaawam xaatam bi mu ko joxee fas fii te jaam be xam na ne xaatam mi teggi rek valeur la ak li mu def ci suuf ci xaalis booleek fas wi mu ne ko lépp sa chance la jëlal daal di wàññeeku pour wutiwaat beneen fas ci biir waraat ko pour dem ndax waa ji bokkoon na ci ndimbal lam doon ñaan mooy fas wu mu bayee ji foofu yàlla dogal mu wàcc fas fi jox ko waa ji waa ji daal di war di dem waaye ku ne xam na ne e, fas e, e, doomu fas xamul ki ko moom ki mu xam mooy ndey léegi mool wi fas wu ndaw wi daal di daw topp ndey léegi jaam bi di dàq fas wu ne kii fas wu jigéen wi rek leen ko may mais kenn mayaale wu ko doom ja muy daw nag di dàq doom ji pour wàññi ko xam nga nu xatam def dafa geestu ne waa ji mu mayoon fas wi ne ko ey sëñ dal mu daal di geestu mu ne ko maa mayoon fas wi mu ne ko ah, mu ne ko teg naa ci doom ji jël ko ak jaam boobu di ko dàq xanaa kooku fa la tabe yem jaam ba doon añaane moom faf na bokk ca may ga léegi kam doon añaane ko faf moom kon ku tabee noonu te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na Seydina Aboubacar ne ku juróom fukki jikkoo ngi ci yow yoo xam ne benn bu nekk ci jikko yooyu rek dugal na nit àjjana te ba ca gën a kawe mooy tabe tabe kon tabe ci jikko yi gën a kawe la bokk kon bu ñu tuddee xaatam ci siira yonent bi sallallahu alayhi dañ la bëgg a wanne kii ñuy wax juddoom di wax siiraam kenn tabewul ba mel ni moom ku ca topp mooy anu charwaan anu charwaan maandu moo tax ñu tudd ko ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa ndax eh, dafa bokk ci famille boo xam ne ay buur lañu waaye buur yooyu buur bi famille bi mu bokk itam dafa am lu ñu yoonal ci seen nguur te loola baaxul mooy lan jigéen daal eh, mbindeef la boo xam ne jarul takk kon nag léegi jigéen ñi ku leen soxla rek barab boo leen mën a fekk mën nga leen jëfandikoo bi maanaa jabar amul kon jamono bi ay maamam di dund mu fekkee leen nguur googu boobu askan amul ndax doom day juddu te du mën a wax ni diw mooy sama baay te booba lislaam amul ci fatra la nu nekk e, mu mel ni anu charwaan li muy nekk nekk xale ne xaw ma day danaa am chance eh, nekk buur wala déet waaye famille bii ma bokk de bu ma yàlla mayee ma dem ba nekk buur li may njëkk dindi mooy jikko ju bon ji ni ñu doyadalee jigéen ak ni ñu ko woyofalee ak niñ ko niñ ko eh, tabarkàlla ñàkkee jox ak xam ak yelleef ba jigéen fu nit fekk rek jabaroo ko moo taxoon jigéen ñi tabaarakallaahu ñoom itam ah dem ba yëg ne daal ñoom doonatuñu dara ci société bi Anou Sherwane nag keroog ba mu faloo nekk buur ci la dindi jikko bu bon boobu eh, mu mel ni kon eh, comme ni ñu ko waxee rek eh, jikko la yàlla di xool ci nit ndax jikko su fekkonte ne yi yàlla santaane ci diine euh, oto la ñu ne jikko mooy organe yi tax oto bi mën a tabaarakallaahu euh, dem fu ne waaye bu fekkee oto bi nee na yëng rek taxaw te organes yi dara baaxu ci amul essence amul dara oto bi du dem kon nag jikko mooy organes mooy essence bi nit ki bu ne jullit la rek ah jëmm ji taxaw na waaye nag lay tax yàlla nangul ko julli nangul ko woor nangul ko azaka nangul ko acc mooy mu defar boppam ci jikko bokk na ci jikko yi ñu gën a naw nag mooy tabe te tabe dafa am lu muy def ci société bi nit moom bu fekkee tabe na rek dana nangoo génne azaka nit ki bu tabee dana nangoo saraxe nit ki bu tabee dana nangoo maye waaw te yàlla bëgg na nit ki digganteem ak ay bokkam ratax loola tax mu digal ko muy génne azaka ndax azaka yooyu bu dee génn dana tax ñi ñàkk mën a am cofeel ci ñi am ba duñ leen yéene benn safaan ndax nit ki bu fekkee bis bu ne mu jël ci alalam jox la danga koy ñaanal alal ja di yokk waaye doo ko ñaanal mukk alalam di wàññeeku waaw su ko defee sa xol di tooy ci moom waaw moo tax yàlla lënkale julli ak azaka julli moo la taxaleeg yàlla nga mën koo jaamu jaamu goo xam ne dana tax nga jege ko azaka moo la lënkaleeg say nawle di say mbokk ak say dëkkandoo tabaaraka tabaarakallaahu ngir ñoom itam nga mën leen a jege ñu am cofeel ci yow su ko defee ñaar yooyu nag mosuñu tàqali ko fu yàlla waxee ne aqimu salaata rek daf ne wa atu zakat ndax yàlla bëggul akimoo la yow dong e, bàyyi say mbokk ki say dëkkandoo déedéet waaw dafa bëgg boo jubook moom nga jubóog say dëkkandoo jubóog say mbokk waaw moo tax euh, azaka ak julli mun ñu tàqali mooy nit fu mu joxee yàlla ak xam na jox itam euh, ñi ko yàlla booleel ci doomu aadama seen àq moo xam dëkkandoo la wala muy mbokk euh, moo tax maandu akuk tabe e, nekk lu am solo bu gisee xajatul wida yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ñu liy defar pénc ba jàmm mën a am e, mu wax ne nangeen ngeen maandu ci seeni der kenn bañ a wax sa morom lu ñaaw nee na ndax waxante lu ñaaw dafay taal ay ci pénc su ngeen bëggee pénc mi am jàmm kenn ku ne na maandu ci deru moromam di ca wax jam wala mu noppi sos mom kenn waxu ko waye sax li nga xam muy lu ñaaw dañu bëgg nga maandu ca noppi ndax loolu dana jur jam ci penc mi ci dess nga maandu ci alalu nit ki moy limu mom mu di akam jox ko ko waaw bu fekke mu ngi ci say loxo bu fekke dang ko fekk ci posam bu ci dugal sa loxo jël ko nit ñi nag waxatuma tabarak gis nga fu ne nii boo doon jaay boo doon jaay eh, di leble daañu jël lépp ndax nit ñi leb waaye nag duñ la fay de ndax nit ñi dañoo ñeme ak ndax foog na ne loolu rees na waaw rees na fekk suuf la mu ci seen biir du rees mukk ba yomal xiyam te bu yowmal xiyaamee daañu wuti alal pour fay la ko te duñ ko am te foofu lay gën a méttee moo tax yenu àq baaxul nit dangay ngay maandu boo lebee jéemal a fay waaw defal sa kémtalay kàttan pour fay ki nga leb boo yoree alalu nit mu jëm si ci moom bu tappale dafa réer dafa nàngam rawatina nag ñi nga xam ne daañu jóg di dajji biti rawatina ñi nga xamante ni ay tappale leen ci Eh, eh, dugal léeg-léeg tabarkàlla nga dem ci société ñu war la toppatool benn kayit wala ci benn kii ñu war la toppatool benn kayit ñu jafeel ko ba pour rek wut luñ la ci laaj yooyu yëpp ay àq la yoo xam ne jullit war na ko moytu war na ko moytu yent bi waxoon na ko nee na kenn ku ne ci ñun ëllëg dana taxaw jàkkaarlook yàlla fu kenn dul fekke li yonent di foor foor jataay boobu du ko fekke li sëriñ di foor foor jataay boobu du ko fekke li wéyjur di foor foor jataay boobu du ko fekke yow kot ak yàlla kot yonent bi nee na taxawaay bu metti la nee na ndax nit ki dana xool kanamam du gis lu dul safaraw jahannam mu geesu ci gannaawam du gis lu dul safaraw jahannam mu xool ndeyjooram ak càmmoñam du gis lu dul safaraw jahannam nee na safara wër la ci wàll gépp kaw ak suuf yaag yàlla kot te boo joxewul réponse bu jaar yoon mu dugal la safara yonent bi nee na bis bu ragloo noonu jar na nga moytu yàlla noo mën ci bañ a dugal lu lewadi ci sa biir donte xaru tàndarma la boo xam ne topp na la na nga fexe ba xaru tàndarma boobu nga xañ ko sa biir ndax mën na laa indil problème ëllëg yow mal xiyaam yàlla dugal la safara waaw ñi yenuy milliards di dem nag ñooñu fuñ jëm segam xaru tàndarma bu lewul nga dugal ko ci sa biir mën na laa dugal safara ëllëg kon ki yenuy milliards fu mu jëm ñu ndax ci nax ci yërmande yàlla yërmande yàlla yërmande yàlla daal génnul alquran ji mu ñu jox ak diini lislaam gi mu ñu jox lim ñu ci wax ñu fas yéene ko jëfandikoo loolu mën yërmande yàlla ku ci nekk di ko jëfandikoo yaa ngi ci yërmande yàlla waaye ku ko bàyyi nag yaa ngi ci mbugalum yàlla yaa ngi ci sànjum yàlla yaa ngi ci musiba boo xam ne mu ngi ci sa kanam wala iyaazu billah yal nañu ci yàlla musal kon ñu tegandi suñu baaraam ci ne jëmm ju tedd ci di imaamul mahdi digganteem ak masiixu ci la ñuy dugg si incha allahu ci waxtaan wi di ñëw yàq bi masiixu dajaal war a yàq liggéeyam ak jéem bi mu koy jéem a rey fan la imamul mahdi di wéru pour yàlla dimbale ko muy diggante bu xaw a doy waar boo xam ne tabaarakallaahu imaamul mahdi ak li muy for yëpp am na ko ko të muy masiixu dajjal masiixu dajjal itam bu ñëwee lu imamul mahdi liggéeyoon dana ko yàq fu imamul mahdi di mujj ak masiixu dajjal masiixu dajjal fan lay mujj dégg ak ki war a ñëw xett li imamul mahdi te mooy isa bnu mariam kon tabaarakallaahu mbokk yi histoire la yoo xam ne dafa dëppoo ak jamono ci nit ñi dañ ko war a xam te nag du suñu xalaatu bopp dañ leen di yebal ci téere yu wér yoo xamante ni su ngeen demee daa ngeen fekk te moo di saxiixul muslim ak buxaari da ngeen fekk histoire yi yëpp tabaarakallaahu muy waxu yonent bi te wax nañ leen ne ëpp na juróom fukki xadis yii wér na peng yii rafetlu nañu ko kon tabaarakallaahu du loo xam ne dañ ko fabriqué rek laysat axaadiis mufabraka waaw ay xadis la yoo xam ne dafa am cislaay bu wér kon nag seen bokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ci seen émission al hidayatu min al kitabi wa sunna ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina ñu woote tabarakallah wasalaamu aleykum wa rahmatullah yéen a Safina FM 98.2.